salut la famille j'espère que vous allez bien gannaaw mu leen nuyoowee di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo fi ñëw nara wax ci soirée Wally Seck bi nga xam ne nii amoon na démb King Fahd Palace ñu gis ci ay fecckatu brésilien yi ci nekk comme seen yaay yi ñu woon comme ñoom niñ ko tàmm di defee bu carnaval amee Brésil ñu gis ko ci biir soirée Wally Seck mu doon loo xam ne nii choqué na sénégalais yu bëri te mu ngi def tour d'étoile mais avant ñoo ci sujet bi dañuy ñaat képp ki nga xam ne nii yaa ngi seetaan suñuy vidéo te abonné goo nga abonné ci chaîne bi aimé suñuy vidéo te wax ñu sa ci commentaire yi <laughs> sama yaay maa ngi jégalu bu baax nag ci li ma woon ci vidéo bi ndax vidéo bi doon na vidéo boo xam ne nii rafetul ci gisin mais il fallait que ma wan leen ko ngeen mën ko gis ndax gis nañ ci soirée Wally Seck bi amoon démb King Fahd palaas xale yi jigéen ñi ni ñu mel ay xale yu jigéen brésilien lañ ñoo fa ñëwoon ñu invité leen ñu fecc ndax ku nekk xam na ne Sénégal loolu du suñu culture. ndax des fois di nga gis ay jigéen yi nga xam ne nii ay kat lañ ku ci mel ni Ndeye Ndiaye Banaya ak ñeneen ñiy fecc di solu sol yi nga xam ne nii bokkut ak sax suñu culture mais tey bu ñu gisee ay jigéen yi nga xam ne nii dañoo solu solu bu jéggi dayo solu boo xam ne nii seen awra yëpp ñu ngi ci biti ñu taxaw di fecc li gën a ñaaw mooy lan dafa jàll en direct ci télévision bii ñuy wax ni 2STV sénégalais yëpp di ko seetaan àdduna bi yëpp di ko seetaan te ay xale ñu ngi doon toog di ko seetaan mu doon loo xam ne ni ñaaw na lool ndax bokkul suñu culture tey jii nii boo ñëwee Europe di nga gis ay xale yu ndaw yu am 14 ans yu taxaw ci mbedd bi di fóonante ngeen baal ma ci wax ji ñoom seen culture la may Sénégal sañoo nga gis ay mag wala ay xale sax même bu nekkee ay jëkkër ak jabar lañ di taxaw ci mbedd mi di def lu mel ndax réew bu nekk ak sa culture ñun Sénégal am suñu culture Brésil ak seen culture Sénégal ak culture am kon tey jii nii mënuma nangu ñuy jël culture brésilien di ko indi Sénégal mu muy ñu koy bàyyi muy jàll te nag li ma gën a metti mooy DJ Boubs mi nga xam ne nii mu ngi woon ci soirée bi ndax moo ko doon animé te DJ Boubs doon na nit koo xam ne nii nit ku ñu respecté la Sénégal doon na gannaaw bi ñu respecté ndax parcours am jaat yaaram dundam rek moom ak jaat yaaram rek dafa doon loo xam ne ni dafay motiver jeunesse yi ndax dafa faay ba àgg fi mu àgg kon tey jii bu ñu ko gisee muy promouvoir lu mel nii même bu nekkee dañ ko invité woon ci soirée bi fay ko kaseem amaana xamul sax ne soirée bi loolu dina ci am mais bu mu gisee loolu noonu dafa waroon teg micro génn la même chose pour Wally Seck ndax tey di nga gis Wally Seck mu génn wala ay fans Wally Seck yu génn naan Wally Seck dañ ko invité woon ci soirée bi moom xamul woon lii dana fa xew mais moom xam na ne déjà moom léppam polémique la buñ ko waxul ci LGBT yi tey ñu ngi ñëw di ko wax ci beneen wàll bi à chaque fois mu def lenn loo xam ne nii rek dafay jur polémique kon en tant que nit koo xam ne nii yow déjà nitu coow nga boo gisee lu mel nii da nga waroon arrêté wala nga woo kii tëgg soirée nga ne ko kat man sama tour dafa ànd ak coow kon donc lii bëgguma ko gis ci soirée bi sinon damay wàcc seen bi ñibbi mais gisuñu ko mu def loolu dañ ko gis mu continuer di woy te Sénégal nag. xaw ma dañoo dëgg liggéeyu jàmbur xawma lan moo ñu dal xaw ma dañoo nekk ci mu jug jamono ndax bu ñu jugee ci loo motif ñëw dal ci lii bu ëllëgee ñu dalaat ci leneen maa ngi ñaan nag jamono mu def liggéeyam ndax tey jii am na loo xam ne nii buñ ko bàyyee mu jàll rek bu ëllëgee dinañ gis ab woykat wala ab rappeur muy def vidéo am ànd ci ay xale jigéen yoo xam ne nii duñu sol yére duñu sol dara comme américain yi ñu koy defee. sama gars yi vidéo bi tey loolu la woon di leen jox seen di dajee ci beneen joon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf